Mamy Mbaye gis nga nit da ngay am fulla da am personnalité da ngay am jom. ah waaye man jommiwuma. yow da ngaa ñàkk jom. ah <laughs> réew maa ngi yëngu nag. réew ba mu yëngu yàgg na li fi xew nag yëpp wax naa ko sama doomu nday ci yow mii la jekkoon parce que man am ndoxu dem dong laa ci ñëw di ko jàppale magam ji gëmul dara seytaane la bu ñu waxee mu naan day wér de di dugal fii xale yi jigéen di leen sang man xam naa lépp lépp xam naa ko musu fee sangu góor njàngam gi jariñu ko dara man lijjantiwu ma ko faalewu ma ko yow nag yow da yow yow sax yow yow yow da ngaa ñàkk fayda yow waaw parce que rajax rajaxoo sa guddi mu defal li nga bëgg yëpp waaw yaa ngi nii leer nga nañ bi fi ñëw meloo woon nii nu mu nu mu tuy mitiyee tax nga leer nañ man nag li ma amoon li ma ciy wax mooy fi mu tolli man pare naa pour ñëpp ŋàññ ma kër gi nag duñu ko jaay tey duñ ko jaay ëllëg ndax moom amu fi dara côté bi muy sangee na ko gérer mu fay sang ay jigéen ma loolu lijjantiwu ma ko moom nag xam na ma bu baax mais yow mii bis ni tey damaa bëgg nga jug ci jàppale sa jëkkër sa jëkkër a ngi bëgg a dee Mami Mbaye yow laay waxal de. yow nag su ma comprendre mooy kon yow li tax Njaay ñëw ci kër gi di def ay conneries yi kon yow yaa wax li tax Njaay ñëw ràlleeku yow yaay seytaane yaay naafiq man ngay waxal mami Mbaye ay waay réew mi yëngu nag waaye njuumaa noo sant mu ne wele waaye yow la ne ci sa kër gee doyu la man sama kër lu fa ne kon yow kay diggante Njaay ak sëñ Saali kon yow yaa ko yaa ko yaa man lu ci ko li nit ñi wax ak laa ilaha illallah dimbali nga amale nit ñi wax man dama làqatu tuuma làqatuuma. gis nga ni ab saytaane moom du làqatu. problème ab rambaaj du làqatu. boo naa fekkee da nga naan fel da naan fàng ni bëtub ja yow nag yaa amu fit te ñeme. man ragaluma la de boo bëggee ñu def ko. comme waaw ragaloo ndax yaa ngi mel ni kuy jongal gëléem. yow ragaloo yow doo ragal man xam naa ne doo ragal. nañ ko riij fii boo nee benn mu ni fukk. xam naa lool fii ba suba. waaw man dama la paaka ñaari boor nga da ngaa mën ci bi boor man ca bee boor. bu yaboo. Eh, eh, eh. ku baax sa wax yow en tant que mag mu tol ni yow kilifa gu toll ni yow yow sa xel mi war a nekk si leneen loolu weeru koor bii nga ñëw ba heure bii kër jàmbur di ko tas. bu tànga soxol kii bàyyi koog man ñemewul maa la gën a ñeme ëpp lu fi téeméeri junni yoon gis nga man gis ma nii rek maa la ëpp fit fuuf man mi tëral gaynde toog di ko watal xanaa du maa ñeme yow dootoo ko defati xamal la laa bëgg nga jóg mu jógal à cause de njaay rajax nak moo tax may dem yow mom amu lu may waxe sa njang gi jaruñu la dara sa couleur yi bari yi ngay mel ni ndugg nit da ngay kase la neex waxal waaw d'accord la neex waxal té bu jaga ngay nuróol té dooma jàpp di ma gëtante da ngoy eh. bayyi ma génn doucement dama lay wax eh, rek wax ji la mënul defal voilà defal ni jallal fi kilifa fi ne eh, man nu ma neex laay joxe te na ñëk tay na ñu mujj tay ngay ñëw ci kër gi man neex laay génne jëm doo rus sax yow yow nag maa xam ay rab may xam. sëñ bi laggal defal eh, lii bu ma wax non affaire xam yi ma wax ni bu ma ko waxatee. ma wax ak ay xam du ma ko kafe kenn defal nii. toppal doxal. waaw man kuuru xam yi moom après nañ gérer su ma gisee Ndiaye affaire kuuru xam yi nañ ko rek. lii dinaa jël samay matuwaay ah. kii mag mi heure bi war naa fekk mu yor alxuraanam mu def ay basmalaam nekk fii di yàq ay xelu nit. ki dégg nga li ma wax sëñ Saliou dégg kii kon xam nga ni kii Ndiaye li tax muy def nii ak yow moom moo tax nee na bi mu njaay jógee Gàmbi lépp la ko nettali ak fii lan moo fi xew lu muy nettali kon yow déggoo wax dinaa régler problème bi way yéen réew mi yéen yënguwul rek réew mi retatoo na de dañ naan jigéenu yoor dafa am waaye wóor na yàlla góor yi yoor yoor ñoo ëpp jigéenu yoor yoor yi man tiit naa sax man ki daal da doo مستقص ليلي باي فالا مريتاني خلما بابا دا كم جاين باي فالا مريتاني يا رجال باي فالا مريتاني خلما بابا دا كم جاين باي فالا مريتاني خلما بابا يا رجال خلال يونو بامبا كفاجا دو دو دو دو رير دو دا جي خلانان تيدو يونو توبا بامبا جي بانغلا بانغلا توبا باي يونو توبا Bakın. affaire lan la tey da ngaa ñëw rek la daan woy sax ngay yëngu am da ngaa ba léegi. waaw ah, bëri jikko kii moo bëri jikko père bi. père loolu ñun ay Baye Fall lañ loolu nga ah, na loolu Baye ñu ay Baye Fall lañ dund loolu sax. booy déglu leen rek man man man man man merewu ma de bu ma leen merewoon du ma ñëw ci kon lan la. Ah, waaw lan mooy sa problème. maa jaaxal. père lu la jaaxal lan ban ban problème nga war a am. bu la jaaxal hmm? waaye ñun ñun suñu jàmm ñun suñu kilifa gi sëñ bi yàlla baaxe na ko ku mu ñaanal mu nangu. daf ñoo def toujours si yoon. voilà ñun du ñu mere nit. du ñu xoole nit bët bu ñaaw daf ñoo tàggat. ma maay booy bul wax sëñ bi ba pare aji maay booy bul wax sëñ bi ba pare aji xool man problème boobu sax laa am. problème mu lan. ma fi mu nii sama bopp bee tëju. waaw te bu ma sañoon yéen ngeen boole meeg sëñ bi. loolu ah. loolu na doon tey tey tey. Fall ñu loolu la ah. ñuy wër. sëñ boobu boo demee si moom maanaam lépp luy sa aajo mooy faju na ah kooku daf fee nekk di ma xaalis boole kook dara du dara day def te yàlla tax kooku moo ñu teg si yoon wii. Ah. ñuy dimbali jaami. kooku xaru tabax si bàyyiwul dara lu ko waay jox mu joxewaat ko. kooku boo demoon tey tey tey tey mooy sa aajo faju na. mu mu mu décanté ma. daa nga daa nga dégg Ndukku Njaay. Ndukku Njaay Ndukku Njaay daa nga dégg. Ndukku Njaay nga xam ne lu mu dugg du sotti sëñ bee ko taal. moo tax lu ko ak keneen ak keneen. waaw bëggul sax ñuy wax ay ay ay kiraamam. billaahi ah waaw buy buy buy buy buy buy boole leen ma si man fi mu toll nag damaa jaxle. sama boppu toj na te man yéen seen père la. ah yow boo pare woon léegi léegi léegi léegi Assane père ban problème nga war a am yow. ah ban problème c'est que sunu kër. Euh, damaa demoon Gambie ba ma ñëwee. Hmm. damaa fekk garab bi di jaxase kër gi. bëgg a jaay kër gi léegi nag man dama ko bëgg a liggéey bu ma ko liggéeyee moom waxi. noppil eh, eh. koy liggéey. sama garab bi bàyyi sax. man bokk ak sa garab nekk bàyyi nga koy liggéey. mooy exagéré ay affaire eh, ñun ay affaire liggéey taxul ñu ci sëñ bi de. weeru koor surtout maa weeru koor nit ñi di dindi ay bàkkaar di utub yiw. waaw nga ñëw di ay liggéey sañ boobu boo fa taxee di ko waxu waxu liggéey. ñun lay boole daf ñuy ba àdduna ak alaxira te yow sax li ngay wax nii sax du waxu palaasu fii ñun fi fu mu toll nii depuis koor gi ba léegi ñoo fii suñu bàkkaar a ngay dem

ñii rek la ñuy def la muy jóge de. ñii rek la ñuy def di defal ñu ay bakkaar liggéey nit. liggéey doomu aadama yow xarit bu ne yaa koy am yow tamit. non kii moom balaa Fall kii bu fi ñëwati de Fall kii bu fi ñëwati de. Eh, lan la wax rek kii bu fi ñëwati de Bal. animé leen lii suñu weeru koor waaye ñu dàq koor tuuti xarit kii kii day day pont. xarit dàqal ñu koor tuuti suñu suñu suñu xol sedd tuuti. waaw loolu ñëpp ci si xarit Dablan ma xoolal lu dablan. leen dablan. dee rek dem leen xarit bu ne lay am façon xarit bu ne lay am dafa tof façon xarit bu ne lay am bu ci nga ne dugg bon aja ak ci rek ci dugg da ngay ay xarit say di ngay under mooy ah kaasu paa yi nga xam ne nii kenn xamul fu ñu leen jëlee. sama sama café gi